let us get, let us hang out a

kenn tooñuñu la. kii foog ñu wax ak moom xam nga yow luwe ko man luwe ko code moo ko fi luwe kii foog ñu taaj ko réunion yaay fàttaliku ni ñu defoon Amar kii foog ñu taaj ko ñoo wax ak moom. gis nga kii gis nga kii day dof dof lu rek di bandi bandi lu waay bandi dama xam ne man samay temps suñ ma mayoon rek ma dellu 40 ans kii. en un clin d'œil laa koy régler ndax li muy jaay nañ ko jënd ndax kuy ànd ak nit kat di ko topp di ko topp ba mu sës hmm. tey gestu nag jàkkaarloo yow hmm. te gestu dafa jot ah. yow mi nag boo góorgóorlu woon tuuti rek di nga ko mën a dóor ah yaa ko mën ah fit nga amul maman Oulaye nag yow xam nga ne man sama laam mi ñu rëy may wax nii rek waaye xam nga ne man mënuma xeex nag xam nga ne man mënuma xeex en tout cas daal man lii mënatuma ko kii moom mënatuñu dëkk ak moom. pexe la ñuy buñ ko woowee taaj ko réunion nañu defoon ama tane woon na di bañ ko taajee tane. waa gaa. waaw xanaa ñun ñëpp mënuñoo dóor ñun ñu dëkk ci kër gi mënuñu ci dara xaaruma loolu xam nga ku ma ko fi indil. Hmm. koo xamee ni bii def ñu koy rek leel am naa sama rakk joo xam ne mm. kaay xeex moo ko gënal kaay naan ah wala kaay lekk kooku laay invité fii mu fanaan fi vingt-quatre heures rek laa ko may mu régler ñu xale bi xale bi dina génn abal mu ca biti loolu nga war a def loolu moo war ndax man gis nga kii dafa am lu ma jaaxal maman Oulaye joojo salte na maman Oulaye joojo bëgg na góor maman Oulaye joojo pànk na pànkul sax day pànk pànkalu ñun ñii la bëgg jël jël bu njëkk xam nga ñoom genre yi façon bii la ñuy def mais soo ko indilee ku mel ni moom dina tane. waaw dëgg-dëgg man franchement li mënatuma ko man kii kii daf ñu yàpp ah joojo joojo nañu ba pare kii moom yàpp nañu daf ñu yàpp ba pare daf ñuy xësa yàpp du salte kese mais daf ñu yàpp. rajo. yaa toog. maa ngi toog. yow mii. Ah! toogoo de. sama kër xarit te sa kër xarit. mbaa wóor na. ma dem te ñëw. sax yow foofu sa gerte sa mbër bi fu ngeen toll. gis nga sa ah. nee na baykat la bëgg doon te man roi de arènes nga ma waxoon. bay meen. bay meen. loolu de yëgguma ko. kooku takk ay bagages ko de def jox la cër takk na ay bagages am ba war a dem xaw ma ban dëkk day bàyyi. waaye yow man kii mbaa dafa bëgg a ñàkk chance kii daal daa mel du moom sama gént gi daal. amul chance man dama ko waxoon ne su ma takkee roi des arènes lay doon. waaye nag dafa ndànk bayum ceeb xaalis a ci de. man maa toogul di xaar muy ji di ñor man du ñor xomb laay lijjanti fi mu toll nii. mën na nekk mbër nekk baykat. mais na nekk mbër ba pare na nekk roi des arènes. yow société yaa ngi nii bay mbër ay ay actionnaire lañ ci de. waaw xaalisu mbër lañ ko defee danoo dem bëre am ay millions dem ji waaye yoroo million ne da dem ji toog di xaar muy ñor entre temps man lan la may yore wuy ma mën ngaa dégg dëgg. Hmm. boo may wutal wutal ma jëkkër ju am xaalis yaa ma dégg. yow bëgg nga xaalis de jël nga xaalis def ko sa naw gii ma nekk la ëppee waaye ñooñu duñu wax dëgg ma ñëw fii nag jëkkëru sénégalais laa ko waaye na yor bii takk ma mettre ma dans de bonnes waaye il faut mu yor bii rek. bii rek su ko yorul ah! ci kanam. tey lii. waaye yow kii bëgg na xaalis de kii mbaa du jël sama soxna si def ci moom jël jël xel mi def ci xaalis. man sama kër gi lima ma mu dugg fi wóorul de li dina ko ci Jojo bëgg ñu waxtaan tuuti na nga def. maa da nga génnoon. maa jojo dama bëggoon ñu waxtaan tay ndax suma ma la motul yaay it mot na la mak te dafa am luma dégg ñu ne dafa xew ci kër gi nga def ko bu dee yow yaa ko def te muy dëgg na dakk ndax gis nga kër gii dafa am règlement te kër gii da ko bokk ak ay nit ay mag ak ay ndaw yu soxla éducation bu baax te ñun ñëpp nag dañoo yàgg dëkk te dañu joxante respect moo tax daal ma xalaat ne bu fekkee ne li ñuy wax yow yaa ko def nga bàyyi ko. eh koddu déglu ma xam nga lan laa bëgg nga xam ko gis nga kër gi maak yow ñoo fi bokk yam ndax dangaa luye luye ma droit bi nga am ci robinet bii droit boobu laa fi am bi nga am ci ëtt bi it droit boobu laa fi am bu ma neexee dugal ko ma neex tegal ko ma neex ndekk ci biir ci digg ëtt bi yoonu kenn nekk ci xam nga la laa am ak yow bu weer deewee moo fay la. ah góor ñu may dugal ñoo la metti bu la naqaree nga wuti góor asalaamualeykum salaamualeykum. maaleykum salaam. ah xuri waaw moom waa kër gi ñoom fu ñuy wuyoo waay man la mère Ulay. maaleykum salaam. Eh, mooy mère Ulay ay man am naa gan. am nga gan maa ngi fi. naka ngi fi. est ce que moo maa ngi ci jàmm. Ah, rek. mère Ulay gis naka waa kër ga. ñu ngi koy jàmm. maa ngi ci jàmm. waaw. alhamdulilah. man kat li ma yëkkati woon dama ko ragal a wax sax. mbaa jàmm la. jàmm la du jàmm. ndax daal e, fële ma dëkk lee dafa am xale bu ñu fa sonal lool lool lool xale bu jigéen. Mm-hmm. xale bi daal lu ko neex def lu ko neex wax. toog na suñu kontóor yi xol xale bi daal pour wax la ko exactement kenn mënu la ko qualifier amul benn qualification boo xam ne rek mun naa koo jël rek lu dul ne xale bi doy na waar mën naa tooñ te yab nañu tooñ ma ne woon nag naa ñëw seeti xuri ndax xam naa xuri eh, eh, eh. xuri kaay añ kaay xeex ko gënu comme noonu la demee ma ne woon damay ñëw invité la ñaari fan sama kër hmm? soo ñëwee rek leen ma ko ba mu ne kooj nga ñëw ñëpp si waat loolu samay tànk te nii ma la fekk nii ah, daal moo doon sama soxla <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin mhm. yow day xam nga ma mm-hmm. niñ lay waxé say temps mm-hmm. noonu lañ may waxé may samay temps berep dina rembatep rep dep rep rub a dub, rub dub,